nag moom premier ministre bu Sénégal ni waaw noppi naa ngir amal ko waaye nag dafay fekk ne rek ay coppite ñu daal di ko indiwaat ci règlement intérieur bu assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar di ko tontu ne assemblée nationale googee ca lañ lay xaar nag waaye du feneen nga koy amalee léegi ko yëglekaay na jàllug Ousmane Sonko ci assemblée nationale nag ngir amal ab déclaration politique générale ma ngay xupp di menacer député yi nag ci kaw rek bu fekkente ne assemblée nationale boobee nag indiwul ay coppite ci règlement intérieur bi fileeg fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2024 danaa amal sama DPG ci kanamu askanu Sénégal Eliman Kane di xamle ci biir yëglekaay bi ne man daal li ma jaaxal ci way politique yi rek mooy dañuy jël li gën a amal solo askanu Sénégal dëggatu ci seen tànk ngir seeni tey bopp Sud Quotidien xëyee moom it lu jëm ci wàllu déclaration politique générale Ousmane Sonko yéenekaay bi ne premier ministre ba ngay joxe àpp kaay bi ne fileeg fukki fan ak juróom daal lam leen wax rek bu ñu ko defulee mën naa def a déclaration am feneen foo xam ne du bokk ak assemblée nationale waa ji nag dal ci kaw Ousmane Sonko l'observateur addu ba tey jëmale nag ci boobee déclaration yéeni kaay bi ne moom Sonko jamono ji nag ma ngay menacé ba noppi nag di xam ne ni boo moytuwulee nag ci kanamu ay jury lay mujjee amalee déclaration bu ñu mel Iba Bari Camara di ab constitutionnaliste nag ne loolee Ousmane Sonko bëgg amal nag bis bu ko defee xam leen na doonut lu jaadu waa Benno Bokk Yaakaar jamono ji nag ña ngay waaj a amal ay yeesal ngir bañ ñu tasaare assemblée nationale l'info yëglekaay ne DPG bi nga xam na koo amal moom Sénégal ci kanamu député yi nag Sonko ma nga cay menacé ba noppi di teg ay condition am nag ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne assemblée nationale daal boo moytuwulee naru narumaa gis ndax bu fekkente ne nag delloowaatuñu poste premier ministre ci règlement intérieur beeg matukaay yi ci war yëpp nag du ma fa jaar tey du ma fa jaar ëllëg règlement boobee nag moo taxawaloon ab loi bu numéro 2021 41 bu 20 décembre 2021 jële ca poste premier ministre bu fekkente ne nag fileeg fukki fan ak ci weeru juillet indi nañ ci ay coppite nag loolee amul nag danaa amal sama déclaration politique générale ci kanamu ay jury ak i universitaire naka noonu ay intellectuel ak i acteurs citoyens yoo xam ne rek yënguwuñu benn yoon ci wàllu politique fi mu toll nii nag noppi naa ci sama déclaration politique générale ñoom rek laay déglu ci jamono ji nag li ma bëgg rek mooy janook ñoom fësal politique piblique bi nga xam ne rek moom la gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye fas yéenee doxal fii ci réew Sénégal Vox Populi ne jamono ji nag Ousmane Sonko ma ngay teg pression ci kaw député yi nekk ci assemblée nationale Thierno ñaawlu li Ousmane Sonko xam le ni nag déclaration politique générale am boobee dana ko amalee ca marché bu Sandaga Abdoul nag ne Ousmane Sonko daal respecté wul tradition républicaine bi tribune yëglekaay ne coow li nga xam ne rek moo juddu jamono ji daal mooy Ousmane Sonko fi mu toll nii nag dafa fas yéene amal déclaration politique général boo xam ne rek du jaar ci assemblée nationale Madiambal Diagne di ko ñaawlu nag jàpp na lii ab coup d'état dëggantaan la Boubacar Ba bu forum du justiciable feelu ko ne lu ñu mel daal ab règlement intérieur la boo xam ne rek dañu ko bëgg amal hors la loi te loolee nag kenn waru koo nangu ci ab état de droit enquête yëglekaay xëyee lu jëm ci wàllum DPG ak tas li nga xam ne rek moo di assemblée nationale yéenekaay bi ne jamono ji nag guerre ba tàmbali na moom Ousmane Sonko nag fi mu toll nii ma ngay jox àpp ñii di député yi ngir mën a janook ñoom amal déclaration politique générale am waaye Mamadou Lamine Diallo ma ngay xam ne ni nag li ñu mel nag dina ko yóbbu ci kanamu yoon Mimi Touré fi mu toll nii nag li mu bëgg moo ñu daal di tas assemblée nationale bi Babacar Gaye ma ngi koy tontu yër leen boobee yëglekaay moom miy samp ndax tey ji daañ ci mën a amal débat d'orientation budgétaire bi lu mu ci mënti doon daañu xam ana fu wànnante di mujjeeki gëtëm les éco yëglekaay ne fi mu toll nii nag groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ña ngay écraser kii du Ousmane Sonko Abdou Mbow ma ngay xam ne ni nag dàq nañu lépp loo xam ne rek mooy prétexte bi mu teg ngir nag lu jëm ci wàllu règlement intérieur moom Abdou Mbow di xamlewaat ci biir yëglekaay bi nag ne fi mu toll nii nag door nañu ay waxtaan yoo xam ne rek dafa jëm ci jooyanti nag lépp loo xam ne rek moo soxal nuñ fi mën a jëlee nag article yi nga xam ne rek président de la république moo ko fi taxawaloon ngir ñu daal di tas lii di assemblée nationale Walf Quotidien na bennoo koy fi mu toll nii nag mi ngi ci tànku guerre bu méttee métti Le Quotidien yëg lekkaay ne gat sa gat sa gi kay fi mu toll nii nag tàmbali na bu baax a baax ndax coow li fi mu toll nii nag mi ngi na combay ci diggante Ousmane Sonko ak ñii di député yi bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne professeur Babacar Gueye ak Moundiaye Cissé jamono ji ñoo cay dox tànki jàmm laas yëglekaay ne coow lu ñàkk fayda li nga xam ne rek moo juddu ci lu jëm ci déclaration politique générale sénégalais jamono ji nag